waaw mu ne dafa gisoon régalam mu toogaat régal ba jeex na bi mu toogee lu mat juróom-ñetti fan gisaat régal bi ndax kooku day julli ak a woor ala kulli xaal borom xam-xam yi day dañuy wax ni jigéen bis bi ko régalam jëkkee feeñu masalan feeñu na ko le premier du mois mu dem gis na ko juróomi fan ak lu mu ko mën a gis mu arrêté mu toogaat régle bi dikkaat tant que rombul quinze jours dañuy considérer ne règle la mais bu dee deret di dikkaat dafa ñëw romb quinze jours loolee kenn du ko considérer règle mooy à partir du premier jour bu mu gis a règle loolu kon dañuy xool su doonte ne moom réglam ba dafa duré woon masalan cinq jours mu set nee na toogaat huit jours muy treize jours mu gis na règle bi ñëwaat na su boobaa dañuy jàpp ne li ci régal bi la bok fi ak dugul ba passé 15 jours yi mi ngi nonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam alaykum assalam wa rahmatullah adama waaw nga ne loolu moom la see leer ah sëñ bi ay bi lañ tafsiré pare di suñu borom dani wax nañ malaaka yi sujuutal leen aadama malaaka yëpp sujuut ba mu des iblis xanaa yow da nga doon yow caam nga sant de da doon nelaw da nga doon nelaw de waaw wax na wax nañu ne euh, am na ñuy wax ne dafa bokkoon ci malaaka yi ngir aaye bi waaye nag bokku ci ndax leeral ne ne xalaqtahu min tiin wa xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin gannaaw bi suñu borom leeral na ca suuratul euh, kahfi ne kaana minal jinni iblis jinne la du malaaka yàlla nag da comme da ko mayoon kattan dooleel ko may ko ngëneel ba muy ànd ak malaaka yi ndigali yàlla ñëw mu ne malaaka yépp su juut leen ca mboolem lu yàlla daan sant malaaka yi da ca daan ànd ak ñoom ndax booba yonent yi commencé guñ ñëw xam ngeen yonent yi ci nit ñi lañu am jinne yi amuñu ay yonent ñoom shari ak nit ñi la ñuy topp léegi moom or li malaaka doon jaamu yàlla noonu la doon ànd ak malaaka yi jaamu yàlla bi yàlla indi li nag nooy sujud leen malaaka sujud moom mu taxaw fi mu taxaw <laughs> gis ngeen loolu bu doon tene sax dane yàlla man damaa foogoon ne bokkuma ci ndax du ma malaaka d'accord waaye gis nga la mu wax mi ngi noonu wallahu aalam ah naam naam naam te malaaka malaaka du bañ suñu borom mu ne laa yaasuuna ma amaruhum wa yafaluuna ma yumaruun malaaka ni ko yàlla bind du bañ naam bismillah waaw commencé ràmm benn tànk mu fàttali ne ku ne dafa waroon a sangu yooyu mujjee tànk bi léegi muy laaj tàngaay boobu nan la koy def beneen mbokk bi muy laaj mu ne euh, moom fu muy jullee ci jàkkaar fukki weer ak benn day day nekk ci safu safu bu njëkk bi mais nee na bu weer koor bi ñëwee fukki fan ak juróom yu njëkk yi daal mënul muy laaj li nga xam ne dina ñuy ala kulli xaal mbokk la nga xame ni nii <clears throat> moom mooy euh, sangu juma loolu jëmmi sangu bi loolee dafa doon loo xam ne ni nii sunna la euh, njàpp may dugg ci biir rek moom njàpp ma njàpp farata la maadaama yéene nga di sangu juma su boobaa la nga xamee ni nii moom mooy la gën ba ngay jàpp nga jàpp jàpp moom mat sëkk doo ko yeggale sangu bi Euh, yonent bi alayhi salaam ci ay sangaayam daana commencé jàpp-jàpp mat sëkk rax ay tànkam yépp ba mu mat am na beneen riwaaye bu soxnaam yi nettali ne daana sangu ba pare mujjee ay tànkam maadaama benn jaamu yàlla la su boobaa dangay gis waa ji mujje woon euh, ay tànkam euh, ca fekk ne sangoogul li ci kaw mu sang lu ci kaw it loolee du dara li jubluwaay bi daal mooy bi muy sangu sangu na te yëg ne na jàpp na lii daal mooy jubluwaay bi bu amee su paree mën naa dem julli ji wallahu subhanahu wa taala am amma kii xëccoo ay sàppe weeru koor kay da ngay gis nit ñi dañuy gën a ñëw ci jàkk yi dañuy ëpp tuyaaba waa ja nga xam ne nii da daan toog xëy na ba dégg ñu léegi ñu solaat léegi ñu taxawal mu doog a ñëw xam ne ne weeru koor weeru ngëneel la moom it day jëkkante maa ngi leen di nettali fii suñu benn mbokk bu ñu wax Mouhamad Tall dafa dem benn dëkk ba ñuy wax Antique Antaaki yi su waay naan Antaaki la ma wax ci ci Maroc <clears throat> mën na ma jum mais noonu tur bi noonu la jëmee Mouhamad Tall boobu ci ndaw yi ndaw yi góor-góorlu ci dina la bokk mi ngi noonu yàlla may na ko intellectuel la mais dafa def sas boppam ne moom du jullee lu jul premier sàppe <laughs> yàlla dogal nee na ma dem Maroc bi ma demee hôtel bi ma dal nee na ma dégg ñu nodd ma wat ci ñëw euh, fekk. premier sapé bi fess mun bismillah jam ñom doyna war di neena euh mané xaaral li de mom do do do ma dalati neena benn benen jour ba ca tégué ma xol ko masala ñi ngi noddu 2 heures man 2 heures moy 10 ma wacc sama hôtel bi mu ñëwé fekk benn rang ci buntu jakka ji man wa ñi lu ñu rang ñu dañuy rang premier sapé de <laughs> ya ngi dégg dañuy rang premier sapé bako lolou fi ci maroc gi dañuy rang premier sapé lolo tax ba Omar ibn Khattab ben way da joge Baghdad da koy Omar waa Bagdad ñoo bon mu ne ko ah mu ne ko wax nga dëgg de am beneen waay bu bu bu mu àndaloon ñëw Omar Bagdad waa Bagdad a baax mu ne ko ah mu ne wax nga dëgg de gars yi ne ko waaw Omar kii de waa Bagdad dañoo bon nga ne wax nga dëgg kii <laughs> de Bagdad dañoo baax nga dëgg mu ku nekk la fa nga doon fréquenté Bagdad la nga fa gis nga gis <laughs> yaa ngi dégg waaye ko nit moom marocain yi moom marocain yi ñu xaw a doy waar lañu ay sénégalais lañ de manière générale waaye nag am na fa ñu baax wax dëgg yàlla loolu kenn gisu ko Sénégal nee na jàkka bi balaa Bilaal a noddu nit ñi dañu ñëw rang dégg nga bi Bilaal nodd dañu commencé dugal par benn dugal par benn bu premier sàppa jeex loolee ñoo fonke premier sàppa yàlla yàlla def ko suñuy xol waaw ñu bàyyi ci xelit ni sàppe si amul kenn ku ci am place kenn amul place ci premier sàppe buñ ne daal imam bi ñaar ñi nga xam ne ñoo koy séq ñu ne ñii bu imam gàggee gàggante leen bu imam kee rocci leen gannaaw loolu kenn amul place ci jàkka ji ku jëkk ñoo toogal li wax naa ko waxati ko téeméer yoon ñu bàyyi ci xel bu baax naam bismillah waaw waaw fi lillahi alhamdu daw ñëw ci jàkk ji weeru koor ñëw na ñu ñëw fi lillahi alhamdu loolee moom mi ngi noonu waaw bismillah waaw waaw bismillah waaw bismillah waaw waaw alaykum salaam wa rahmatullah waaw teñ ko def benn rek am na ñeneen ñu yëkkati yi li benn bi rek waaw waaw waaw waaw bismillah waaw naka lañ koy déggee mooy yonent bi moo ko jàngale noonu yonent bi alei salaam ne boo demee ci armeel yi neel asalaamaaleykum ahli diyaar maa ngi leen di nuyu yaa ahli diyaar wax nañ ko fi ci tafsir bu passé la nga xamee ne ni mooy la ci gën a mucc ayib mooy suñu borom yàlla dana leen déggal la nga xamee ne nii moom mooy am nga jaamu yàlla bu leen di ñaanal yàlla du ne yow sa kàddu la ngi dégg directement waaye yàlla dana leen xamal loolu ba loolee doon loo xam ne nii lu leen jëriñ la amma pour ñoom ñi dégg sa kàddu direct loolu du doon lu ñuy dégg kàttanu yàlla nag subhanahu wa taala mooy def lu ko neex masalan tey jii portable bi waa ji nekk ci États-Unis di di di di di di wax wax jooju yow dégguloo ko mais ci kattan bu suñu borom yàlla def ñëw na ba kàddu gi feeñ fii donc yàlla moo xam nu mu leen di dégtale ndax euh, euh, la nga xam ne mooy régle bi am barzak ak régle bi am ci kaw suuf ñaari règle yi bokkuñu mi ngi mel ne rek nekk ci gént ak ki géntul la muy dund loolu bokkul mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw euh, lu tax ñu wax loolu mooy yàlla mooy tëral lu ko neex ci diineem noo yonenti yàlla du tëral dañuy jottali li neex yàlla yàlla mu ne bu bàyyi dee na góor jël ñaar jigéen jël jigéen jël benn yaay jël soxla jël sumun moo ne koo xame ni nii bi muy judd kenn takkul sëy bi bu mu doon wallahu subhanahu wa taala naam bismillah واو واو يعني يعني يعني. وعلى كل حال gëmal loolu يلا وخرج ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم Euh, yonent yàlla muhammad du bàyyi kenn ci ñun du bàyyi benn góor li ko yàlla wërsëgal ci ay xale kenn nekku ci woon rajul rajul mooy ko majeur yàlla ñetti doom la ko mayoon ki ci gënul gudd fan mooy ibrahim un an et demi lu dund ñu ci des yépp bi ñuy nàmp lañu lañu faatu amaa nag ñu ne yonent yàlla bi ñëwaat ne ci kaw suuf takk fi téeméeri soxna am fi ay soxna ay ay yooyu mbokk suñuy wax la euh, nattu la bu ñu yàlla nattoo yàlla nañu yàlla musal ci seen loolu ñuy wax mbokk musiba di yem ci bopp boroom yonent yàlla ki nga xam ne mooy Muusa bokk na lu mu waxoon yàlla mooy afa na bi ma faala sufahaa minna yàlla yàlla boo ñu alage ci ñi xamul ci ñun di wax loolu nag bokk na musiba bu gën a rëy boo xam ne Sénégal li fi woote ci ay yonent ci kenn xamul nu mu toll dem nañ ba am sax yonentub jigéen loolu moom Sénégal rek laa ko xam kuy wax laa ilaha illallah fa lillahi alhamd yàlla ci maandu bi mu ñëwee lam jëkk a tere ña ko gëm mooy bu ñu leen waxati laa ilaha illallah xam nga léegi su ma ko doon wax fi dañ leen ay libre <laughs> wallahi mbokku Sénégal gii la xewe ab yonent feeñ ci Gibraltar nee na yàlla ko yónni mbooloo wër ko dañ ko daan jox télévision yi mi wax mu ne bu kenn wax laa ilaha illallah seen daje ba daje ba jeex kenn du wax laa ilaha illallah dañuy wax naan allahu rahman allahu samad al mais laa ilaha illallah déedéet koor gi dañ daan weer wi day feeñ mu ne taalibe yi koor jotagul ñu bàyyi bala 15 mun a commencé leen bu ñu bala 29 mun a arrêté leen ay nit topp ko wallahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naam waaw ñu mujj ca mbokk bi rek waaw wala ma kii daana yëkkati loolu waaw bismillah ñu wax ci après ñu mujj ci naam alayhi salaamatulah waaw naam loolu am na ala li xaal loolu ñu ñu jël benn question bi rek mooy la nga xam ne mooy yonenti yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu bind moo tax loolee mbokk sunu maam yi dañ koo gis ci yenn téere ci yenn xadis waaye nag la nga xam ne mooy téere bi yàlla bi mbokk nañu xam ne mooy wax dalil bu dagg boo xamee ne ni jullit wóorul sikk sàkk gannaaw loolu mbokk suñu borom bu waxul woon lu tax ñu bind ñu loolee mën a nekk benn débat waaye borom bi subhanahu wa taala dafa wax yonent yàlla bi waxal jaam yi ne wa ma xalaqtul jinn wal insa illa illa liyabudun mbokk yàlla bi ñu ñu lu dul ñu jaam ko gannaaw yonent boobu suñu borom na ko waxal waxal ko sa bopp innama ana basharun mislukum yuha ilayya man nit la ko yéen dañoo wax yu ci man suñu borom mu ne wala khad uhiya ilayka wa ila alladhin min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min khasirin gis bo mo bokale la nga bok ci ñi nga xam ni dañuy perte kon lolé la julit wara a gëm yonent yàlla bi du len ludul jamu yàlla la yonent yàlla la waxna ko sang ci tafsir bi wa shada anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul ngay abd yen ñaar ñëpp yàlla da leen bind ngir ngeen nek ay abdu jamu ko buñ ko bokale dara ñu mujj ci mbokk bi rek waaw waaleykum salaam wa rahmatulah ndax jullit am na sañ-sañ jullit ci kër yéeféer ah kay suuf yépp jullit am na droit jullee fa suuf yépp ba mu des li yonent bi alei wax lu mel ni ci boucherie yi ñuy rende mi ngi noonu ak lenn ci ay géttu giléem sib nañ ko fa julli ci biir ay douche sit nañ ko fa waaye bu dee rek ay kër gu yéefér moom ak tool bu yéefér moom loolu lépp dara nekkul julit jullee fa mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain